tey lii dafa doon loo xam ne mbébét bu yàgg la ndax guléet Air Sénégal bi soog a def Dakar Jeddah waaye namoon nañ ko ndax ñii doon faral di jël yoon wi di dem Dakar Jeddah la doon daj métti na lool métti na ci njëg bi métti na ci coono bi ndax balaa ñu doon àgg foofu danañ doon jaar fu bëri balaa ñuy àgg Jeddah ba nga xam lu ne xaj na ci mhm. waaye ci gis-gisu président la république mu ne ñu na ngeen fexe ba xool seen avion yi bi ci gën a mucc ayib muy Airbus A330 bi nga xam ne dina jël ñeent fukk ak juróom-ñeenti siis euh, bu ko defee ñeent ñeent fukk téeméer ak juróom-ñeenti siis lay jël bu ko defee mu mën yóbbu pèlerins yi direct fii ba Jedda bi ñu décidé def vol boobu ñu gis ne kat vol boobu mën nga ko def diggante ndakaar ak Jedda ci juróom-ñetti waxtu ak Airbus bi ah ñu ciy kontaan bu baax di gërëm suñu passagers yi nga xam ne ñoo ñu wóolu. di gërëm ñii nga xam ne ñoo jógee Bamako jaar fii jël ju ah di gërëm aussi suñu ustaas bi nga xam ne maak moom ñoo bokk conseil économique social